annonce analyse episode 36 seen série babel sama gay nak eh, man mi bamay dogo setan gay seen scénario bi eh, jomi won na trop moy bama degi que ni khalil def na accident vu nak eh, déggon nañ ko ci téléphone mu jik sa dégg def ben bruit mais nak ñepp seen xel len rek ci lañ nekkon que ni khalil def na accident mais nak ndekante lool yep ay coup monté la won nak ngir rek tek plan bi nga xamantene ki di khalil dina mëna récupérer ki di fat bintu ci ay anami doy war ba tax nag affaire yi réussir na à cent pour cent vu que situation bi ñëpp si jàpp pour mu daal di réussir c'est à cause de ça que kii ni di euh, Fatou Bintou daal di euh, nangoog retrouvé wu ak kii di Khalil ngir euh, nekkaat ak moom vieux mi mais nag mun nañ demuma France bi kii di Fatou bintu dina ko génneegum si xalam bi ba mu lijjanti li nga xam te moo nekk ay projet ndax vu que moom marié mi delluwaat nañ dinañ gën a mën a nekkaat ensemble mën a lijjanti ay projet yi nga xamante ne war nañ ko accomplir fii nii si Sénégal ndax bañ séparé si loolu yëpp la am yaakaar naa ñaar mën kenn te tamit euh, kii di Fatou Bintou doon na demal boppam ba tax na nag euh, projet mi nga xamante ne moo ngi ko doon liggéent yi doon échec carrément te mun nañu nag jëkkëram bi di nay ñëwaat pour jàppale ko si loolu noonu dina gën a yomb mais nag euh, loolu yëpp du wax bi sama gars yi kii nag di euh, Leila mun nañ ni euh, bàyyeegul li nga xamante ne moo nekk plan bi muy teg ndax euh, jëlul intention am sax moom instant yi leen rek la bëgg muy venger aussi ki nga xamante ne moo nekk Farbintou lu mu ko daal di si biir loolu mais nag mun nañuy euh, dina def ay plan nag nañ leen ko déglu rek xool nan la koy doxalee xool nag euh, nan la koy daal di indiwee si ay idéem xool nag euh, Fatou Binetou ndax affaire yi dina ko jàpp wala du ko jàpp ndax dina tombi si pièce bi wala du tombi si pièce sama gars yi mais nag lu si mun di am nañ leen patiente rek xaar affaire bi indi indi. action yi nga xamante ne moom la ñëpp di xaar xool na xam Leila dina venger wala du venger wu sama gars yi jaa ngeen jëf ngeen gën a abonné te activer cloche yi bañ a tardé benn vidéo jaa jëf sama gars